bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala xuwata illa billah aliyal azim mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di nuyu monsieur le maire Talla Sylla bi nga xam ni moo ñu dalal ci dëkkam nuyu suñu kilifa bi ñu àndal muy président du conseil d'administration Mamadou Racine si nuyu bu baax a baax le représentant du président du conseil départemental nuyu administrateur yu IPRES yi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun nuyu directeur yi membre comité de direction bu IPRES ak chef de service yi nuyu le chef d'agence de l'IPRES de Thiès Thierno Gueye ak agent bi yépp nuyu tamit le chef d'agence de la caisse de sécurité sociale monsieur Moussa moolo Ba ak agent caisse de sécurité sociale yi nuyu le docteur Adama Diop wante nag nuyu surtout suñu papa ak suñu yaay retraité yi nga xam ni tey ànd nañu ak El Hadj Aliou Diouf ak Abdou Karim Wade ñu jóge au niveau national fekk si le président Omar Ndiaye ñu ngi koy nuyu nuyu tamit le président Ndongo biñ ñu wax ni yaramam dafa sutante ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla saafara nuyu retraité Thiès yi nuyu tamit retraité Tivaouane yi ndax ñoo ñoom ñoo seq jataayu tey bi nuyu suñ papa Alsane Diagne bi leen jiite ak suñ papa Ndiaga Dieng Mountaga kamara ànd ak retraité Tivaouane ñëw fekke ci jataay bii tey de li ñu fi indi waxtaan ak yéen ci loo xam ni li ci ëpp wax nañ ko ci rajo wax nañ ko ci télé bind nañ ko ci journaux yi waaye ba loolu yépp amee président Racine Dany dëgg la loolu xëy na def nañ ko mais nañu àndaat jóg wër Sénégal fépp fu retraité nekk ñu fekk foofa waxtaan ak moom gindoo ak moom am occasion lu ñu war a leeral ñu leeral ko mu ni même bu dara xewul woon sax dina jaadu ni ko monsieur le maire waxe ñi nga xam ni yéen ay yaa leen di liggéeyal jamono su jotee de temps en temps ngeen dem toog